Kara yow dama bëgg xam nga yow yàgg di wax. Euh, ak baa mën a takk dossier bi am na ko ci bind livre mën naa ci bind fukki livre waaye ñemewu ma ko. vous mais mais mais ce qui est dommage ma rek. Oh, parce que quelqu'un boo xam ne comme maître El Hadj Diouf quelqu'un qui est apprécié aimé et respecté quelqu'un qui toujours courageux quelqu'un boo xam ne si ne ni ragalul pour xeex lu mu mën doon pour l'éclatement de la vérité de tout bord que ce soit. qu'il soit réduit tey jii à à à je ne vais silence. parce que quand même il y a de quoi quand avoir peur pour sa dire lan moo xew uh-huh. lan moo xew parce que tey ji bu fekkee ni sin dañu bëgg ñëpp noppi quitte à de ce ñu bàyyi benn groupe de personnes di di régner di def lu leen neex di dóor di taal di condamner lu leen neex fal uh-huh. ku leen neex folli ku leen neex uh-huh. mais ou va ce pays tey question boobu dañ ko war a poser parce que maa ngi xool maître mais dama tiit pour sam bopp tiit pour téléspectateur tiit pour ñu plateau bi parce que si demee parce que buñ demee ba ñun ñemeetuñoo wax dëgg dem ba suñu ay njaboot yi tiit maître see l'ordre des avocats je sais eh, eh, non non sëñ Saliou ñëpp ñëpp ah, dafa ne la ordre des avocats liberté bi nga am peut-être moom mën a xañ liberté mais xam na xam nga waxal sa bopp xam nga xam nga non non sëñ Saliou ñun kenn dara tënk sëñ Saliou liberté de parler sëñ Saliou waaw lii moo tënk ñëpp non tënk na la tënk na la parce que ci sa biir wax léegi léegi am na contradiction boo xam ne si ni ci ah, diggante rajo non ça si am na on parle de de parler parce que vous défendez benn cause boo xam ne mën naa ne personnel si aujourd'hui maître dire que ni sañatuma def nangam mais quand même boo ko ko nangulul man nangul ko ko man. oui mais c'est pas la même chose c'est pas la même chose. ça n'a rien à voir. si mais moom par rapport ak li muy liggéey c'est à travers ce dossier la loolu am. waay daaw sonal avocat yi. bien sûr c'est à travers ce dossier. waaye bii moom. waaw dafa ñu ngeen mu taxaw ni. Mhm. respect strict des règles. avocat yaa gën a wax xëy na avocat ñeneen ñi dañuy wax suba ngoon. mais loolu lépp ana branco xaw ma blanco xaw ma bico. loolu lépp seen règlement la. waaye ñun léegi comme cas bi dafa sensible. may nuyu bâtonnier ak ordre des avocats xam naa ne solaloon nañ bâtonnier di ko tawat El Hadj li muy wax di ko bind ay lettres El Hadj li muy wax hmm, pourquoi sur avocats yi du ñu wax. Hmm. ba bâtonnier ooma ni ma du yoon ngay wax tout le temps te doo tàggoo. mais hmm. dans dans l'état contre Karim Wade contre Karim Wade nit Karim Wade yi am na ñoo xam ne dañoo doon fekk tribunal. attaqué la yuuxu la parce que dossiers yi nga jël yow Sénégal gisuma avocat bu am fitu sax dem taxaw jël yenn dossiers yow am nga fit boobu jël ko. alors on laisse Kader terminer ordre des avocats moo la suspendre waxuma taal kër yi de taal nañu sama kër. waxuma waxuma saaga yi nga xam ne ay ay mille saaga par jour yooyu da yëngalu ma xam nga lan la. Hmm. wax ji man maa wax mooy déranger ñu bëri. wax nga dëgg mais mais xam nga loolu xam nga xam nga loolu la nit ñi mën de supporter c'est ci nit ñi nag moom moo war tax ñu def constat bi man constat laa def ko jël ko ci maître yóbbu ko ci ñëpp des comptes des comptes sur les réseaux jour képp ku àndul ak ñoom ci li ñuy wax ñu saagale mais du ci yëpp des comptes sont fermés chaque jour mais ne comment ñoom la mën a permettre seen bopp di Ils signalaient des gens pour que leur compte soit fermé. Des groupes de presse soient même pris pour cible. Non, mais il y a de quoi quand même faire un constat. Non, il y a de quoi faire un constat. tey jii on n'a jamais parlé du mal de Yoor ou d'autres mais am des organes de presse ils sont pris pour cible. parce que seen ay position la seen ay il faut accepter non non je parle dans le cadre général ne parle pas de mon salarié eh, non non non xam nañ ah. journal kan la oh s'il vous plaît je parle dans le cadre général s'il vous plaît il faut que ñu accepter si ça dérange aussi plateau candidat mo bu ngal dani yéré journal waajo mhm. da man sama ngor mayuma ak sama jom may défendre bind mag mu dul wax dëgg toog ci plateau bu ngal dani di continuer mag day wax dëgg. toog ci plateau. mag day wax dëgg alors euh, on continue s'il vous plaît ci débat bi ñu nekkoon s'il vous plaît. maître dama ne mag day wax dëgg. dama ne mag day wax dëgg Kader. alors maître s'il vous plaît nañ bàyyi Kader mu terminer. xam nga xam nga euh, aussi constat bi ma doon wax léegi ci sëñ Sall sëñ Sall waxee léegi jëm ci jëm ci euh, type de kii nga xam ne si moom lañ ciblé fee yi di wax problème de vol. xam nga man dama sax dama yaakaar ni ñenn dañ ko déglu wala dañ ko liirul. Euh, nañ xoolaat li Ousmane Sonko publier lan la taxé dafa ni carrément dañu sàcc ay bien wam moo vol la utiliser ñu nangul ko Ousmane Sonko que moom il peut se permettre d'accuser li nga xam ni si moom moo di les no forces de défense et de sécurité de voleur alors que moom ñu taxé ko de voleur et ñu ne non c'est pas normal di ko bëgg ridiculiser lan lañ bëgg ñu gëm dem leen ngeen seet li mu bind moom moo ko publié ah. mais loolu léegi la moom moo wax ni vol dafa am mais les deux ne sont pas les mêmes. ah bah mais non mais on parle de vol ah. non on parle d'abord de vol. non il faut il faut textuellement il faut le placer dans son contexte. li mu wax le procureur wax. il a utilisé le mot vol. il faut voir les motivations le mot vol donc pourquoi le mal. day am day mais non mais non non non li muy wax xam nga ko. d'accord non non non. Sey Sali Sey Sali. li nga xamoo ko waaye xamoo li nga. tu moom moom moom Ousmane moo utilisé ah. mot bi ñu albati ko ko delloo ko ko et yéen ngeen bëgg ko ridiculiser bëgg a teg si ngeen di jàmm vous faites Ousmane un prophète et les autres ñoom ay jël ay portable mais c'est ce qui s'est dama ni dama ni gis nga wax ju ne dañ koy teg wax ju ne da koy teg ci contexte bi mu moom dama ko doon indiwaat rek juste ci li mu wax ni carrément lii dal Ousmane ay caaxaan la mais c'est même caaxaan moom la utiliser pour diaboliser li nga xam ne moom moo di appareil d'état bi donc il faut à un moment quand même qu'on soit logique bu ñuy accepter li nga xam si mooy dëgg su fekkee ni ci biir communiqué bi ñu lire ñoom ñaan ñëpp parce que avant kenn di xam Ousmane moom moo njëkk a tweeté pour dire que ni am na lu xew parce que il sait qu'il a fait quelque chose de trop mm. il faut quand même ñu accepter même bu ñu wax génnee viol le fait que ñu koy avant sax le fait bi ñu génnee cadre agression ah, viol euh, appel à l'insurrection et autres xam nga ci lan le fait d'avoir saisi téléphone jàmbur yóbbu ko et pour justifier loolu ci même texte bi la wax loolu ci même tweet bi hmm. man ma saisir son téléphone yóbbuwaale ko waaw kon donc il sait ni moom li ñu koy toppee moom moo ko def. il waaw mais moom moo ko def d'ailleurs il reconnaît les faits. oui il reconnaît les faits moom il a pris le téléphone pour dugg ak moom ci biir këram. donc loolu rek bu ñu yemee ci contexte boobu bu ñu ko nee bu ñu ko taxé de de voleur ça fait très mal mais contexte wax pour wax la ba far wax jaar ci lu dul dëgg dëkk bi tàkk. ay wax ça veut xam nga mais Saliou léegi bu non non sëñ Saliou sëñ Saliou man dama bëgg a jëkk a ñëw ci fi ma la fekk non fi ma la fekk sëñ Saliou fi ma la fekk fa laa bëgg a dugal yow ba pare doog a ñëw ci leneen il continue sëñ Saliou il continue man foofu laay waxee non il faut pas tromper non non non parce que waa léegi d'accord léegi ce qui est à la fin ce qui est lan moo lan moo wax jooju waaw d'accord non non mais va pas s'amuser avec ça. Oui, mais on va pas s'amuser avec ça quand même. Bon, d'accord, mais d'accord, mais maître, on va pas s'amuser. Voilà quoi, on va pas s'amuser avec ça. S'il vous plaît. Non, non, non. Non, non, non. On va s'écouter. On